ci Cheikh Béthio Thioune mi nga ko Béthio mi nga xam ne démb ca këram nga nekk ca Zac Mbao la doon jano ak taskatu xabaar yi ngir waajal ba ca gëm bii di le 17 le 17 avril mooy mandargal bés bi mu dajee ak Serigne Saliou Mbacké loolu la doon waxtaan ak taskatu xabaar yi mais bari ay ponk yoo xamante ne ji Cheikh Béthio Thioune leeral na ko fa bokk na ci gise bu mujj ba mu gise ak Macky Sall bokk na ci lu aju ci euh, diggam ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall moom Cheikh Béthio Thioune yamu ca ndax euh, lu aju ci ki nga xamante moo di soxna Adja Déthié Pène mu ne euh, moom mooy soxnaam bi mujjute ci kookee lay yam Cheikh Béthio Thioune yamu ca mbirum Ami nga xamante ne ji daal ci Fass bu amoon ay jàngaam fa ami collé bëggoon a wax Cheikh Béthio jànni ko ca ndaje ma yëf jur coow Cheikh Béthio Thioune leeral na ko nee moom du kuy jànni waate du kuy toroxal doomu aadama te yëgul boppam ni mu mooy dafa organiser ay jàngam ami collé ca wax xamul kuy ami xamul lan lay wax moo tax te sax nee fi yëf yegg ami ko fa yóbbu ndax woo ko ci ruq ne ko sama jàngi bu ci jël parole ami dëgër bopp nee moo tax mu def ko ànd moom fii la ndax moom xam na man xam na beneen yéen bu dellu waxi Cheikh Béthio Thioune moo di enquête xëy ñu xamal ne kii di Cheikh Béthio Thioune enquête moom di Cheikh Béthio Thioune ak li mu def mu di wan na Abdoulaye Wade ba noppi nag di jéem a kii di Macky Sall ndax xewam 17 avril bi bëgg na Macky ñëw teewee enquête moo ñu ko wax nee na ko yeggee taskatu xabaar yi quotidien xëy di ñun ci moom Abdoulaye Wade mi booy ànd ànd ak moom yéene boo am du yegg lan moo tax moo di gars yi bëgg a jiite parti démocratique bari nañu mais ku ci nekk da la cey génne ki ne ji wax na ne dafa bëgg a jiite parti bi wuutu Abdoulaye Wade yéen a kaay bi nañu congrès bi ñu euh, na ko ba ci weeru am na lu mu wax nag ci yéen a kaay bi nee na bu aju ci ay waxam lépp lu mu xalaat ci doxinu parti wax rek dana ci wax moom Modou Diagne Fada soo lay leneen loo xamante ne ji njiitu réew Macky Sall ma nga mu di bi muy amal diwaanu Ndoukoumane ñu amal fa conseil interministériel décentralisé yéen bi nañu Kaffrine la mu soxla moo di juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent ngir kon mën a suqali am na ñaar fukki tracteur yoo xam ne yéen bi ne nañu tey ji danañu ko jébbal baykati réew mi njiitu réew mi eh, di Macky Sall ci Sud Quotidien lan la yéen a kaay bi di laaj moo di mandat bi wax ne da koy wàññi fan la koy jaar journal bi nañu en tout cas mi ngi seet yoon mom Macky Sall partem bi mu di APR la seen militant bu ñëk moo di reewande ñoom ñi ci nek ñëpp réw ci gattal nu leen neex lañuy doxé lolé nak yene kay bi nañu mom Macky Sall bu ko wul nar na ko lu bëri ci lam koy xagn wal fajr melni ku ci gis dara mu di parti socialiste yi nga xamantene yene kay bi nañu ci dem lañu lañu gëna jégé li tax moy niñ leen di songé li tax moo di Ousmane Tanor Dieng gaay mi ko sikki mu ngir mu euh, samp candidat ci présidentiel 2017 en tout cas dal wa parti socialiste seen nek ci bir Benno bokku Yaakaar bu doon sey la yene kay bi nañu ngi défar bagage ngir tas las ñëw ci leneen mu di fonds de dotation bi ak ni ñu ko séddalee yéen kaay bi nañu am na lu ca am ndax ki nga xamante ne ji moo di Alioune Sall rakki Macky Sall maire bu Guédiawaye dañu ko tibbal ba xolam sedd Abdoulaye Timbo goro Macky Sall ñu tibbal ko ba xolam sedd kii di Khalifa Sall dañu koo compal ndax Abdoulaye Timbo ak Alioune Sall ku nekk ci fonds de dotation bi am nga ci 180 millions Alioune Sall sax li mu jiite association des maires du Sénégal laas nañu na lu euh, yoo xamante ne ji moo ko am na Sall moo di dañu koo gannaawal ci moomile mbir ñu dem ci grand place Pape jeexalee lu doy yaa ngi fàttaliku Euh, booy yi ñu jàppoon Colobane ci affaire électricité ak yooyu ndaw si nga xamante ne ji moo témoigné woon ba tax ñu jàpp leen tëj leen ñaar fukkeeti kaso bokk na ci ñu témoigné yéen a kaay bi ndaw soosu sax moom jàpp nañu ko ndax mbiru escroquerie benn moo di ba ñu koy jàpp ñaari tur la ñu gis ne moom la soxna si yor grand place nee nañu boo demee ca Colobane mu ngi fa tudd Aram boo demee ca Yoff mu ngi fa tudd Ndey Soxna ñaari date de naissance am na ñaari papa ak ñaari yaay man hmm. ci ban fànn <laughs>